Thiandoum ah d'accord waaw loolu la waaw man day maa ngi seen gannaaw rek lu ñu def baax Malick nuyu naa la Iba maa ngi lay fay mais Malick coow li bari na trop Ama Baldé Modou Lô waaw seen signature émaillé e d'incident euh, en Gambie ñu dem ba Gambie mu am émaillé e d'incident loolu nan ko jàngate bien que nekkoo foon nga nekuma fo nag xam nga fo nekul mom pour nga wax la fa xew da fay xawa jafé waaw mais li ñu mën rek moy déplorer mm-hmm. ndax euh, face to face bobu depuis euh, quelque temps ça mm-hmm. yu ñu ko organiser du sotti euh, te lolu je pense que war nañ ko dépasser ci niveau bi ñu tollu ni ndax modlo champion la Ama Baldé champion la mm-hmm. tay tollu nañu ci lamb niveau bu nga xam ne luy yàqu warul jóge ci ñom quel que soit les enjeux de l'heure war nañ ko mëna gérer parce que man yaakaar enjeu bu nekk gis nañ ko fi combat bu nekk gis nañ ko fi combat royal bu nekk gis nañ ko fi kon lu mel noonu je pense que euh, waruñu ko bayyi muy prospérer xam nga dañu wara def tout ba face to face yooyu mën ah. c'est dans l'intérêt des deux lutteurs et surtout de amabal ah. parce que Ama tay ku nekk xam na ne moy ndaw mo soxlo titre roi des arènes tok na lu mat juróom-benn at bëriwul donc tay war na def tout moma boppam ba coow du am ba bu ñu jàkkaarloo ak Modou Lo ñu jàkkaarloo ku ne wax li nga war a wax parce que affaire bi du ci face à face ca géew ba la donc nañu bàyyi ba jouru làmb jo lu waay mënoon sa morom nga def ko ko mais avant li nga xam ne moo leen war mooy ñu def promotion combat te promotion combat bi àndul ak coow du côté de Modou Lo aussi ñu ànd ak moom nañu ànd ak dal xam également Modou amul lu muy prouver ci làmb tey li ko war moom mooy ñëw gunge xale yi and ak ñom terminer sa carrière en beauté et lu mel nonu kenn waru koko yakal donc des deux camps on appelle à la sérénité et au calme pour que enfin combat bobu ñu mën def face to face bëre ko ci jamm fu mën sama rom daal. jërëjëf. merci beaucoup moo bëgguma ko def ci dama bëri bëri. Ah, mais amul problème tu as dit l'essentiel. dinañ ci gëna waxtaan. waxtaan bi na gën a kii je suis perturbé waaw mais na gën a xóot parce que tey beneen événement moo ñu indi muy Rock Mbalax waaw mille deux cent prises yi mu war a lancé donc loolu ñu war ko ci jàppale incha allah dinañu am jotaay man ak yow ñu yaatal ci lu bari ci làmb incha allah merci maa ngi seen fanam de moom moom i Kane TV da koy daw rek xaw ma lan la ko Iba Kane TV def ah mais da nga koy daw Iba Kane TV bokk na ci ñi la lancé de da ngay daw Iba Kane TV man ñii laa gëm ar ar day mot lii ñooy aar ñii lañu wax ah, ministère de la culture war a jàppale yéen laa man nuyu naa leen door la leen ma benn rang rang rang Sadio Ndiaye rang rang rang ndeysaan rang déedéet boobu dama koy ragal <laughs> te yàlla